tey euh, ci Touba bi nga xamante ne ci suba war nañ commencé si service d'hygiène commencé si moom pour gën a wax nit ñi ne lépp loo xamante ne teg nañ ko ci wàllu faj bu fekkee amul lu ñuy wax fagaru bu mën a continuer wax naa plusieurs fois même bu nekkul tey bi ñu paree loolu yëpp ñëw nañu ziar suñu papa suñu xalifa parce que moom itam koo xamante ne santé priorité la si moom donc bu ñu ñëwee nañ ko dooli nañu ñaan parce que toujours mu ngi ñuy ñaanal ñëw nañ ci porte parole bi li nga xam ne mooy sëñ Bass Abdou Khadre itam gis ngeen li moom lay def ci santé ñun am nañu yaakaar ànd ak administration territoriale nga xamante ne monsieur le gouverneur moo ko yore mais yoru ko rek pour santé mais parce que tey jii ku nekk xam ne ne santé ñu ñun rek ñuy faj ñoo ko yore dañu nekk ci li nga xam ne dañ koy wax multisectorialité dañuy wax une seule santé am nañ ci yaakaar loolu ci infrastructure am nañ ci yaakaar lool ci personnel am nañ ci yaakaar également ci environnement de travail li ñu ñaan rek mooy ñu gën a dal te yéen tamit waa presse bi yaakaar naa ñu ak yéen ñoo mës si ànd ñooy continuer di ànd li ma bëgg toujours mooy rek ngeen wax sénégalais xam naa yeneen koor yi dinañ ma mere ñu ñëw di def santé parce que actuellement gis nga li ñu def ci radiothérapie en terme de matériel ku nekk xam ne ne Sénégal am na ay sommité yoo xam ne dañ ciy def ay formation donc ñuy ñaan suñuy doom suñu ay sëdaat ñëw vraiment pour mën a jëw relève bi parce que yaakaar naa ne li ñu desee tam bëri na. hôpital euh, Cheikhul Khadim mu ngi biir Touba mais rek du wax ne dafa nekk ci dispositif màggal bi parce que au delà du màggal également c' est un hôpital de référence euh, extrêmement donc important ba nga xamante ne tey bi nga xamante ne dañu déménager Dantec bokk na ci l'hôpital yi nga xamante ne jël nañu ko.